yu am solo la am niñ koy waxee ala daw me dinañ waxtaan dinañ dellusiwaat ci làmb ji nag lii di Ama Baldé Modou Lo ku bëgg a daan rek toppal vidéo bi ba mu jeex tàkk si mbokkee na ma bàyyi leen nga nuyoo ak mbokk askan bi salaamaaleykum mbokk sénégalais deux vingt et un maa ngi nuyu yëpp maa ngi gërëm yëpp man mooy Mohamed Lamine Simbo Keita guérisseur traditionnel sunguf waaw bisimilah maa ngi déglu suñu. tarkal mm-hmm. jërëjëf euh, Serigne Simbo Keita am na solo ci sa nuyoo boobu yooyu ñu lay fay bu baax a baax a baax mm-hmm. loolu am na solo aja waaye nag euh, fu ma bëgg a njëkkee bokk na ci liñ naan seet. Mm-hmm. seet nag suñ ko waxee ñenn dañ koy wooy euh, maanaam lii di list xaar ñii di ko naan seet olof njaay di naan lu foofu bëggoon naa ñu dellusiwaat ci bu baax a baax ak nan nga koy defee. sama Serigne salaamaaleykum bala ma commencé affaire yëpp. alduna xoolal jafewul seet lal la yaa ngi dem seto yaa ngi dem apas ndaw fekk docteur day jële bio pour consulter la pour nga xam sa feebar lal la su fekkee docteur amul appareil pour consulter est que dina xam sa feebar est-ce que dina la fay sa feebar seet mooy lépp suuf mooy affaire nii suuf sama waay yaa ngi toog nii yaa ngi France fan la dëkk France yaa ngi si côté dëkk yaa ngi ci feneen xawma ma côté boobu am na chance maa la toog fi nga envoyé ma sa tur ak sa sant ma seetal yow sa côté boobu nga toog baaxul ci yow déplacé nga dem di côté dex ba nga déplacé nga dem côté montagne seet loolu la mhm. loolu la jigéen bi dafa bëgg góor bi dafa bëgg jigéen est-ce que comme horoscope bi rek est-ce que suma takk bi dina dunuf yaa ngi seeti ak mariage bu bari sëriñ ni day ñëw jël kay ma lisxaar la ah lisxaar dëgg la dëgg la wax ma critique ma kenn mais suuf mooy lépp hmm. sama baay su ma wax suuf bi ni ngi fanaan fii ba bëccëg suuf mooy jina séegi moko séegi hmm. moo koy cinq jinne huit jinne hmm. huit nit yi yaa ngi dégg boobu moo boole affaire yi xam nga kan la joge ci Idrissa yonent bi yàlla idrisa boobu la jóge yonent bi yàlla Idrissa la wàcc ki téeméer bidoo mooy ramul la tuur nga ñëw ci ñëw na mu xool kooku mooy benn nit nga waxe yàlla nga kooku mooy dund aljine bu dund deewul de mhm. dugg na aljine bu dund cause di seet bi loo mhm. tax seet du affaire bu ndaw ah. seet latur bi maa wax loolu mhm. latur ku am nga am su jàngal nga jàmm ñun suñu école latul école la première jusqu'à terminale mais fii nga ñëw tey suba gi non non ñoom seeti Sunjata Sunjata Keita yi mm-hmm. suñu seet xam nga bala Sunjata de dundu seetkat ne ñoo nga wax Sunjata am na benn période dina dundu fii seetkat mooy ñoo defal ko mu ne kan a ah. mu ne ah am na benn du benn waa ji adduna yëpp day xam tuddu day juddu fii après dem na après affaire set boobu set boobu mënu ma déetu dé set bi rëy na mm-hmm. baax na mais ku am ndimun mm-hmm. giri yàlla ak yoon bi nga jongal set bi. tarkalla am na solo. aja mm-hmm. euh, Serigne Simbo Keita euh, sa consultation doo doon wax nit ñi ñaata ngay seete ak ci lan ngay seet. Euh, alhamdulilah rabbil sama set bi ñeent la yëpp ay ramul la am na ku wax ramul mooy suuf ni mm-hmm. am na ku wax latur am na ku wax tien tien mooy dëgg. yaa ngi dégg. Mhm. loolu mooy sama seet. deuxième set bi sama wàll jinne la nii. sa. béjjén jinne bi gee. jinne moo la jox léegi. Ah, sama béjjén jinne mooy nii sama sëriñ bi. Ah, su fekkee ni gémul yoo saa. Hmm. maa ngi woon ko mille preuves mais man ñe ñëw ma pour affaire Komañakan maa ngi fi pour dëgg dëgg tey. su ma woon ko affaire bu bari ni barada magique laa. su ma defal ko yaa ngi gis bu baax baax ni hmm. ak kurus kaalis laa. ñoom mooy sama dee son ñoom mooy liskal ku nekk si bitim réew ku nekk ci diaspora mhm. yow ku nekk ci sori yow ku nekk ci tolof tolof mhm. ou bien ku seba nit dafa réer mhm. maa la wax yow sa nit benn dama dëkk ni fekk foofu la nekk sa doom na nga fekk foofu prix bi ñaata la boobu junni na junni kese laaturu beneen bi si ñëw na ci keset may rek deux mille francs la su fekkee yaa ngi fi deux mille francs taf taf la am na solo jërëjëf Serigne Simbo Keita aja damay jàll ci mbiram euh, lii di mbëggeel nag ndax dañ ko waxee ñaar ñoo ko seq waaye jamono ji léegi da ngay gis ñoo xam ne dañuy bëggante hmm. dem ba fas war a fasante coono di ci am hmm. maanaam euh, jafe-jafe yi ci am ñu ñëw ci côté mbëggeel sama waaye kontaan na trop alhamdulilah rabbil alamin ma sant yàlla ma sant xam nga weer bi hmm. weer koor la weer yërmande la <laughs> sama waay loolu ma waxal ak sama xol bu sedd sama waay nu dem nu dem lu sori sax ma dem ci benn côté horoscope xoolal loolu ñun affaire horoscope la eh, am bi am na case case ndox la beneen bi suuf la beneen bi safara la beneen bi eh, eh, ngelaw la xam nga saafara saafara fee. Hmm. ak ndox du ànd. yow si dem na jële jigéen bi am na bidon ndox yow bidon saafara yow yow du ànd ànd ka du ànd. xaal ak ndox bi du ànd maa la wax ci yow mhm. il nga ñëw ci sëriñ ma xool am na ku ñëw ci ma day mel ci man waa ji nga topp la du sa jëkkër day woor la wëlbatu la baakoo nga dem tege beneen gi maa la wax loolu su gémmun su gémmun nga dem sa yoon set boobu mhm. kooku mooy jëriñ seet affaire boobu am na affaire bu bari même su fekkee dem na su ñu ko dem mhm. gis ko garab bi man garab kese la liggéey lii lan la man duma féticheur de ci ñëw yamawaay nii. Mm-hmm. garab la yaa ngi dégg ni ñaam ni toi et moi yaa ngi gis ni. Ah, toi et moi madame et monsieur. <laughs> nii mooy pic ak pelle. Mm-hmm. nii. Mm-hmm. pic ak pelle. ak pelle. bii bii man kese bu àdduna bu tukki amul keneen. <laughs> wax nga loolu. nii bant la yaa ngi gis mi ngi laxas comme jaan. ñaari nii dafa la am. mais Casamance ou bien Côte d'Ivoire. Mm-hmm. du garab Sénégal de garab forêt la nekk. ñu dafa jafe am. Mm-hmm. su fekkee sa jëkkër day topp la comme ni tel empl eh, tambour ak eh, timbre ak eh, enveloppe. Mm. bii la sama waay. bi nga utilisé ton mu ma pied amul dara. Dakar nga dem kanam. Mm-hmm. maa la wax. waaw waay. jërëjëf sëñ Simbo Keita aja mm-hmm. comme lim leen ko waxee. Ah, euh, sànq nag waxu leen saafara de. safaral leen wax safara bi tàgg. dëgg la ah, kon ngeen xam ko mu leer ci olof yi la rek. dëgg damay ñëw ci mbirum liñ naan mariage mu di sëy jamono léegi nag sëy dañoo dañoo xaw am jafe-jafe da gis takk léegi nga gis tàppasante coow li bëri ñu dem taxaw tribunal sëy dañuy gaaw a tas lan eh, ma gërëm la ma sant la sama waay xam nga loolu laal la mhm. affaire intérêt ak xam-xam intérêt am na. Eh, philosophie ma eh, intérêt mu ngi foofu waa bi si takk na defal ko air boobu mi ngi doxal naa day yëkkati ay cent mille francs trois cent mille francs quatre takk naa la bu pare <laughs> même dix mille francs sa problème la pour génneel xam nga problème day ñëw. donc mhm. mooy premier première solution. deuxième solution am la la rab. rab la. rab ku am rab. jigéen ànd rab si dugg na sëy du dugg sëy day tas sëy du dem fenn. sama maa la wax publicité bi ma am de ma wax benn man weer koor bu barke marka bi ma nga bu ñëw pour jokkoo ak salaam suñu spectateur nit too sonn naa jigéen ñi sonn naa ci sëy fase fase takk na suba ginnaaw suba fase na mm. takk na doy <laughs> ngeen koy sama waay loolu la jëriñ njaaloo de bari ci jamana bi jamana Cheikh Amadou Bamba mm-hmm. jamana eh, Xaadimu Rasulullah mm-hmm. jamana Baye mm-hmm. jamana Serigne Dabax Malik bul foo ci bi suuf si foo bari na fii. Mhm. day indi ko kasara day indi ko tasaro du yàlla du am yërëm. yaa ngi catastrophe ndox bi. yaa ngi de sama wax loolu. Mhm. sama waay lan mu nga nii. xam nga nii. la. <laughs> daay mu kay mu. daay mu kay mu xam nga loolu. baaneex si si. si monsieur. Mm. jubé ko la ak yow. si day génne. Mm. day den doxal keneen. Mm. su fekkee laal bi neexul. tem mu ngi nii ak parfum bi sama waay. Hmm. waxul monsieur kaay monsieur gisante da nga ñaam tuuti rek nga xam. monsieur day téye saa wedd kooku mooy Serigne Simbo Keita moom hmm. lañ dalal boo ak léegi ci biir émission bi. waaye nag am na loo xam ne bëgg nañ koo xam. Hmm. yow chasseur ka wala guérisseur kii nuñ ko tuddee féticheur. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil people kontaan naa trop trop man chasseur la chasseur du féticheur de. lan moo leen wutale. merci. féticheur day ñëw tëkkale tëkkale ay béjjén béjjén defal ko ci deret deret tilim tilim loolu fétiche wax ma du dégg de wax ma ko du dégg wax ma ko du dégg mais sama waay Rahamud la seetal la turu benn doom la turu mun na dominer cinq fétiche sama benn doom la turu fii maa la wax ci yow sama waay si gëm ma ko wan ko sa fétiche léegi léegi léegi léegi maala la wax ci yow woon ko sa petit am na benn bant fi am na benn benn garab fi garab bi mënut ko juuf juufaxaa juufaxaa san gis ko ni photo bi lii lan la nii ay fétiche la rek bi indil photo sama waay waaw bi mu ngi nii maa ngi nii man may ni féticheur bi fétiche bu gën a garaw laa bu garaw ci àdduna mais sama waay sama ndox kese ak ma boole ko ma sotti ko fétiche bi mhm. fétiche yëpp day nelaw ci amul loolu waxal waqul jaa al xaqu azzawku al baatila in al baatila kaanaw zawkan kooku may tocc fétiche bi ci bit Kaaba waxuma fétiche du dégg de waxuma du ma fa du ma man juddu na ci féticheur yi. kan moo yaaru na ci féticheur yi. kan moo gën a aay. ah donso mooy aay man rabkat la donso maa ngi dem ci àll trois jours maa ngi si àll quatre jours une semaine maa ngi fekk jaan foofu peut si su ma am moyen ma am xam-xam gaynde de mat ma lekk ma. segg yi mu ngi foofu mi ngi si ci ci ci ci bison yi féticheur mun na defee ko une semaine ci àll fanaan foofu amul kenn féticheur mun na loolu ker kese mooy ker féticheur ñun dunso la àll la nekk tuurey temps waay man dunso la dunso cent pour cent tarkalla voilà jërëjëf sëñ Simbo Keita am na solo ci ponk yooyu ñu duggoon di ci leeral waaye mm. damay ñëw ci benn ponk boo xam ne feebar la hémorroïde lan nga ci mën façon la intérieur ak extérieur intérieur day naaj. ci dem na douche bi day naaj. sama waay humoriste ci gis na loolu. humoriste du fee feebar Sénégal feebaru ñaar yi la mais affaire de contaminé boo ñëw bu fii humoriste si jàpp naa la su fekkee fi intérieur la sévère la maa la wax su fekkee yaa ngi dem douche am na constipation humoriste mun na defal ko jigéen day dem toog trois quatre jours du dem ci douche et puis des impuissance ci góor humoriste des impuissance ci góor sube ku génne. Mhm. mais su fekkee si kattanyaa la garab imorid ma ngi fi sunguf la garab imorid ma ngi fi nii sunguf ay sunguf kese ma ngi fi sama waay. Mhm. garab imorid su fekkee jël na ma def ak su fekkee intérêt la su fekkee exe eh, intérêt su fekkee day génn mhm. macha allah si génn na fi mun na faj faj bu wóor. waaw si neexee yàlla si kattan yàlla. sama waay ñu ngi si eh, eh, weer bu barke. mooy ramatu bu barak. dana <laughs> waaye fen baaxul <laughs> caaxaankat yi jàq na dëkk bi yaa ngi dégg dëgg mooy dëkk sëriñ si ñëw na dëgg ba dëgg mm-hmm. maa ngi fii macha allah ñëwal nga essayé mm-hmm. garab yi mu ngi si bagage sa armoire mu ngi si ci biir armoire tarkal am problème alhamdulilah mm-hmm. waaw aja lii di faro rab lan nga ci mën nag voilà ku yore faro rab alhamdulilah rabbil alamin kontaan naa jërëjëf yàlla jërëjëf sama borom sama mm. rab maa ngi wax est-ce que yoo xam nga ñaata faro rab mu ngi si àdduna hmm? Hmm? am nga ñaata far mu si àdduna. xaw ma ko hmm, sama waay <laughs> merci beaucoup yow excellence terminus. Mhm. farab am nañ bu bëri. Hmm? yaa nga jigéen kese am farab. Hmm. jigéen am na fara góor dafa dàq jigéen saa. sama waay ma wax benn affaire exemple bu ndaw. Mhm. yaa ngi gis góor yi day tëdd laal su guddi day dugg sa loxo sa tubéy. nga foo sa boobu. rab la. jigéen ci guddi na si tëdd na. day dugg sa. seer nga foo sa boobu rab la rab mooy defal loolu rab mooy nak loolu defal ni defal mee sa xol la ñëw. ah kon jinne du def loolu rab a defal loolu. jinne xam nga lu ma defal ko jinne ak rab ça fait deux. saa waay ah, ma détail bu baax ma defal ko à ni à rab yaa ngi dégg. Mhm. yaa ngi dem tëddee nga guddi yaa ngi génte ou bien yaa ngi génte benn affaire. suubee kii am na benn waa ji oubien benn nit sa nit la ñëw na see sa seeyiloo. Mhm. loolu rab la góor la jigéen. tëdd bu nelaw après yaa ngi gis benn nit day ñëw tëdd ak yow si laal nga seey loolu rab la mun na am góor mun na am jigéen deuxième rab mooy la sama waay. Mhm. mooy bu gën a garaaw kooku mooy jinne waa si am na jëkkër te dem na bu tuuti dee dee kooku mooy jinne bu du rab dee. loolu mooy jinne seytaan kooku mooy seytaana mhm. ku am ja dee dee ku allah si ñëw na am na garab mu tugu garab bi cuuraay la sama waay mhm. cuuraay bi xam nga nu mu tudd faaso yoo xam nga na dugg si faaso <laughs> sama waay faaso ak munaas mhm. cuuraay la yaa gis ne garab bi mooy fanto fanto même bambara yi sootee mooy wax fanto. Mm. ni mooy garab rab. su ma su ma dem si àll pour chasser. chasser mm-hmm. la ni na teg sama fetel. waaw boobu fetel. Mm-hmm. même su ma gis jina su ma jokkoon ma daw ma ma lii moo koy daw la wax ci yow. fanto. Ah. deuxième ma mm-hmm. la di. xaw ma ko xaw ma kay man mu ni mooy jasi ni mooy rab. sama waay nii mooy rab ndox nii ube mbaar bii ube mbaar kooku mooy rab ndox der bii mhm. maa ngi liggéey ni si rab de ak am naa rab kenn du dàq rab boobu day aar borom bi mais du jóg jëkkër day poussé nga am mer day xuloo day xam nga jigéen bu rafet ku gis dafa am nii rek nga xam ne dafa rab mhm. mais garab mooy nii jasi bi ak nii sunu fu mi nga cuuraay bi mu ngi faasoo ak munaas. am na solo yaa ngi dégg. Mhm. cuuraay bi su ma defee ko loolu su paree incha allahu. Mhm. sama waay affaire bi dina baax. jërëjëf voilà. atia ñu jàll ci liñ naan bayre du ma nee bayre nag bayre bu sax sappa tax may wax. ñu mhm. yëngatu ci aar bi di musique di ji. ak yeneen ak yeneen commerçant yi. bayre bu sax sap. sama waay euh, wax na wax ba alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin yaa ngi wax de. bayre bi ba nga ragal ci bayre parce que man mi ma toog bi sama mag bi dafa rey ci bayre jigéen ñi. xeex na xeex na après da nga fini pour rey ko benn tubaab loolu tax dama ragal bayre bayre premier xam nga laa la ni yëpp ay bayre la temps waay hmm. ni may samsul bilaadi yow dégg na ko samsul bilaadi damay dégg nii rek de boo nii mooy mbooloo ku jaay hmm. xam nga sama waay xam nga duma ma wax benn affaire ci yow hmm. confirmant mi yàq na lépp ndeysaan ndeysaan maa ngi bëgg ñëw pour loolu surtout suma gaay mu ngi ci bitim réew sama waay defal na ko bitim réew man France la dëkk Toulouse Nantes Lyon. Mhm. Bordeaux Dunkerque. gis na ko bitim réew foofu sama mbokk bitim réew sama waay gis na ko loolu yëpp foofu. Mhm. sama waay. maa la wax si yow. Mhm. bàyyi rey yaa ngi si atelier xam nga confirmation bi yàq na affaire yëpp. am na ku nekk guddi day liggéey guddi day am. mais si wax dagg na guddi yow la am. sama sama bëgg bayre premier bayre mu nga ni lii mais bayre xaalis la yaa ngi dugg sa calpe nga boole sa parfum yaa ngi ni dërëm mi ngi nii seetu mi ngi nii dërëm mi ngi nii dërëm mi ngi nii seetu mi ngi nii. bii sa calpe laa dugg. bokk saafara bi. sama waay. Hmm. mais si dugg na sa calpe. Hmm. demal toog ba Kirikoro si nekk yàlla ni day ñëw seet. le marché ambulant ku nekk Espagne. ku nekk France ku nekk château yi. ku nekk lu nekk. sama waay si laalu naa ni bayre bi. mais bayre xam nga laa la ma wax benn affaire. lan la am na xewel. sama waay ñu ngi si eh, eh, koor mu barak. sama bayre bala nga jël foog nga am sarax pour jël. bayre sa nga indi ko ma neexal ku amul dara. ñu ngi si weeru koor bi. am na ku nekk amul lekk dafa ñàkk lekk. si ndong si si si na. Mhm. amul ndox. yaa ngi génneel ay ginaar ak njuku ginaar ma dem neexal loolu après nga ñëw ma jaay ma jaay bayre deuxième bayre mu nga ni bàkk mm-hmm. ni bàkk xaalis la mu ni jaaro bi ah? ni xaalis la mm-hmm. ak nii maa la ko ni yépp ni bayre la bayre su fekkee yaa ngi bëgg nguur mm. pouvoir mm. sama waaye pouvoir mm. ak nguur ak chef projet nii bayre mu ngi nii nii eh, jaaro bi mm-hmm. mënu ma ni képp am na benn wax am na ku nekk si fisa mu ngi jiite kenn du wax turam bayre bi la am sa loxo bi borom bi si laal na ko ci day wax dee bi fa ko nii rek mais <laughs> bayre la dee ni moom mm. sama waay kon maa la wax yow sama waay yéen ñi ci ay bayre jaaro mhm. ñam leen lii di sëriñ bayre xaalis Simbo Keita ak bayre diw mu ngi nii diw mhm. nii diw yaram la diw yaa ngi defa ko ci diw ci biir diw su fekkee yaa ngi jaay ou yaa ngi defa promotion ou mm. yaa ngi defa ko dara xam na na xale bu jigéen ci toog na kenn du ñëw même si son seen nga génne kenn du ñëw seet ko. Mhm. sama waaye defal ko ni sa diw rek nga ñëw jox ma defal làmbal jille nga ma tuyu nga. waaw atia ma ñëw nag jàll ci suñu mbokki Modou Modou yi nga xam ne. Mhm. sa su nekk dañuy am lii di problème mu papier mbirum këyit. ñu mhm. ñëw ci waaw. sëñ alhamdulilah rabbil alamin weer ko barke weer koor yàlla na ko gudd fa ak weer yaram sama waaye. alhamdulilah bi comme maa ko man tamit marché man man eh, immigré la xam nga yow wax na sama passeport ma nga nii. yow nga bàyyi réew ma ñëw fii. macha allah billahi. xanaa bu rëy bi rek. xanaa fee daa doxul. barke baax bu baax sa mais buguma humiliation Sénégal dëgg teranga Sénégal kenn wax eh wol ma sa carte d'identité nga génneel su ma génneel fii ak marché raful mën ko sa papier man nangu ma loolu wala ma mu nit bu ñuul la pour que du arrêté pour que du tubaab yi mais ñun su ma génneel nii ak nii yaa ngi woon sa papier même si fàtt na sa papier benn yoon rek. jàpp nga dugg si kaso bon ma loolu. loo mhm. tax ma ñëw toog sama dëkk bu. jàmm ak salaam pays de teranga pays de la paix. waaw waaw. loo tax ma booy nga ñëw toog fii. sinon du affaire boobu ma ñàkk foofu de barke barke Seydina yàlla xam na ko. Mhm. bu ma liggéey foofu mënu ma liggéey fii. parce que sama seet kese boobu rek cinquante euros cent euros la. benn personne maa ngi seetal ko cinquante euros ou bien cent euros si la armoul. xam loolu loolu yaa ngi dégg. mais mhm. loolu tax ma ñu toog fii ma xaar cinq mille francs ak trois mille francs bëgg dëgg rek. dama sekk yaa ngi dégg. am na solo sama loolu problème mooy lan. Mhm. moodu moodu yi su ku bugg kur kayit dépose na si préfecture ou bien dépose na si courrier xam nga préfecture mun na am nga sànni ko si courrier yooyu yëgul dara envoyé sa xaalis man ma seetal ko nga jox ma sa numéro passeport si kattan yàlla si neex yàlla. sans waaye jot dina am kayit man defandoo am na du yow am na ni si ku seetal eh, deux cent deux cent vingt deux people ni bu bëri mun na wax ko loolu dëgg laa yëpp xam na ma mhm. affaire kayit affaire kayit moom sungu fooy rek ma defal ko soxlaa sa numéro carte sa numéro passeport rek nga photo sa numéro passeport rek lépp sotti préfecture boobu nga déposé dox ma turu préfecture rek après nga toog nga seetal ma sama waay. jërëjëf am na solo sëñ Simbo Keita. lamb ñi di waxtaane fan yi mu di Ama Baldé Modou Lo loo ci xam. labayka alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin sama waay eh, affaire bu métti na xam nga nit yi commencé na yàq affaire bu bari bari bari bari. ñaari mbër yi. Mm. keroog ko entre ñaari mbër kii Umar eh, Sanama Kan te ren bu bëri wax na sa victoire. Modou Lo ak Ama Balde. Ah, maa ngi ñëw. maa ngi mm-hmm. expliqué loolu rek. Eh, bi la pour passé nii. Lac de Guiers Eumeu Sène. Mm-hmm, waaw waaw atia. Mm-hmm. mu ne. Eumeu Sène de daanu Lac de am na ku ne Lac de daanu ñu te du yàgg saa. dëgg la du dëgg man du wax score. mais yàlla may na ma tuuti si ab veille de combat maa ngi wax. combat du dem fenn. Lac de Guiers day foo foo xaara xaara xaara xaara xaara xaara Umar Sène daf dee du du du que xam nga dafa gën a ak dafa gën ak affaire bu gàjje mais léegi su ma ñëw ci euh, loolu mm-hmm. sama waay sport bi su ma jëlee sama jinne mën na wax loolu ma day jël temps tuuti salaan sa béjjén jinne sama béjjén jinne ah ñi ah, may sama jinne sama waay xanaa ci biir ah loolu yow du xam loolu de <laughs> c'est à am na ku nekk ci biir kee sama wax loolu de expliqué ma lépp. ma hmm. béjjén bi. kon kon de maa ngi xaar moo wax ma Ama allah si neex yàlla. acca si neex yàlla su neex suñu boroon. Hmm. waaw acca acca sama waay. Hmm. alduna amul folo alduna amul dara alduna foog ma xool nii. combat bi. soriwul dara. dara. na wax loolu bu baax baax baax baax. alduna amul sol alduna amul dara. Mhm. mais du ma wax ci yow spécialement. ñu mhm. bàyyi ba bés ba ñëw tuuti rek. junj doy na borom xel loo a xam ci Ama Baldé Modou Lô nga tàggatoo. Eh, eh, sama waay. Mhm. Ama doom Falaye Baldé doom Falaye Baldé la. lu doom Tidiane Lô papam Tidiane Lô la tuddu. <laughs> Falaye Baldé ak Tidiane boobu mu ngi fii jeex yaa ngi dégg. jërëjëf. Mm-hmm. alduna bëgguma su ma wax léegi léegi affaire dina am dëgg dina tës xam nga. sëriñ eh, bëri amul problème de sukk mm-hmm. ak fans yi. Mm-hmm. commencé na xel xas ma sa YouTube loolu kese la bañ su sekere mu nga ni sama loxo ma woon ko léegi yaa ngi gis kii. lu doon loolu léegi nga ah, wax sama waay man dëgg boobu na dëgg dëgg neexul dara. am na sama benn waa ji wax na benn problème boobu la ñëpp ci yow ragaluma ko de mais dama bugg garder sama dignité ku daanoo yëpp xam naa. Hmm? ah waay jàmbaar. mais ku la woo ku la woo téléphone di nga ko wax kii daan. Mm, très bien. ku bugg loolu. Ah. nga woo ma téléphone ma woo ku daanoo. sànq ak euh, Umar Sène ma Umar Sène ma ne bu ma jee de defa ko daanu boppam. Balla Gaye. Hmm. ak euh, euh, Bombardier mhm. si neexee yàlla maa la wax yow. Mm. dina wax loolu woote ma sama numéro yi rek nga wax ma. di nga wax di nga ñu waxal ci. macha allah ak mm, mm, champion bu bees oubien champion bu ñëw ma wax champion boobu léegi léegi nii. mais du léegi de sama waay. si bu loolu nga woo ma nga woo ma sama numéro. Mhm. ma wax ko yow ak fayda. jërëjëf sama sëriñ. Euh, am nga ñu ngi si koor mu barak loo tax ma ñëw ma defee ko ñu yëpp. Mhm. léegi fan ren metti na. Mhm. ci confinement. coronavirus bi. Mhm. feebar moo du feebar africain feebar tubaab la. xoolal suñu gel yi ak sama affaire yi yëpp. Hmm? xoolal suñu bagage yi mais loolu du dara de sans waaye. borom kër gi. ku liggéey cent mille francs par journée bëccëg ak guddi léegi mun na jaay saa même trente mille francs même vingt xam nga loolu métti naa am na ku nekk yaakaar papam yaakaar yaayam la sama yaay ngi bitim réew day liggéey ay videur am na videur am na ku ne guddi day liggéey mais léegi loolu du liggéey xam nga loolu métti na maa ngi fi spécialement pour dumbali ko ngir yàlla yom ci bi ak barke sum xormatul ak sum weer bu xool bu barak sama taagu may laan sama way xam-xam foog nga jàngal. Mhm. xoolal ni yëpp. deux mille vingt deux. mooy deux mille vingt et mais trente huit ans. Mhm. man trente huit ans mënuma wax sama kam xoolal liste bi fii ni yëpp ay secret la sama waay. ni yëpp armoire mu nga ni. Mhm. xoolal affaire rab bi. affaire biir bi yaa ngi gis ni. xoolal affaire nii. sama waay xam-xam foog nga jàngal ko. bu ñëw nga taxawal ci ci kaw youtube nga wax nii ak nii ak nii ak non non non non sama waay mhm. jàngal ko nga ay mhm. après nga génnal nga wax nit yi lu dëgg ak sàmm ak salaam en tout cas maa ngi nuyu sénégalais ak boobu ma wax benn may jox benn conseil sama waay mhm. bàyyi conseil boobu bu baax dëgg bi dëgg bi maa la wax ma wax encore ma wax numéro troisième fois ma wax loolu moytu politique der tourna der bëgg pour tour encore de mu ngi ñëw de pour élection sama waay. Mm-hmm. moo wax sénégalais ngir yàlla ak yonent bi yàlla ngir yàlla ak yoon bi yàlla yëpp ku nekk sénégalais sénégalais ak sénégalaise maa ne ko yëpp nga defal ko astaghfirullah astaghfirullah yaa latif yaa latif après yëpp nga utali ko ndox nga tuur sa buntu kër gi après duutir nga utali ko duutir nga jox ko amul dara ah sama waay der bu tuur maa ngi gis encore de ne ma ñaatem fa ma wax loolu. oo jàmm de. ah sama waay ma ma taagu bala affaire day ñëw ni mooy sama deuxième fois première fois defal na ko suñu kilifa bu baax mi ngi fii hmm. macha allah borom tuuba mu ngi fii day ñaan Baye Niass waa kër Baye Niass mu ngi fii waa kër eh, eh, si Maodo Malick hmm. Ceneba Bukunta Mhm. imam Malik. Mhm. Laayeen Laayeen. jërëjëf ko nga ñaan. Mhm. pour que der du wat maa ngi gis der bu tur de sama ji ña na wax ma tuuti de. ma ne ko nga defal ko attention nga waxal si politicien nga wax ko ci ku nekk ci chef gidu nga giriya pouvoir du dara. même si toog na nga defal ko santa benn su fekkee yow deewul su fekkee yaa ngi xëcc pour pouvoir maa ngi gis de mu ngi ñëw encore de deret de tour encore de. Oh, jàmm de. ah maa wax am gis naa encore deret mu ngi tour encore. jërëjëf jërëjëf waaye. ma ma tàggu foofu jërëjëf. jërëjëf.